waaw bëggewaat ñëpp rek ziaraat ñëpp joxaat ñëpp seen wàccuwaay ñëw fekk fi Malika fekk fi grand champion ndigal ginnaaw bi mu jugee si diggante ak Jacob Baldé ba léegi gisuñu ko dégguñu ko sa combat am taxaw na diggante ak Kaw Gourdin le 19 da nga mu ne wax jër muy bari ndigal bëggee naa la. bëggee fay ñu sant yàlla bu baax julli si bi di sant gars yëpp fan fan si xëy rek am di jàmm di nuyu bu baax di nuyu waa sa cameraman bi ñaaw bi nga xam ne xalil leen bëgg bu baax a baax. mais ndigal bi nga jógee sa combat kaaku dem la gisuñu sa combat Jacob Baldé la gisuñu la. waaw ne si dëkk bi liggéey rek xam nga moom bu li may wax sax bu jëf taxawee wax amu dafa place. Mm. comme wax nañoo wax ba ñëpp bàyyi ñu xel. Mm-hmm. dañuy jox ay combat dañuy dem liggéey nag pour génn si combat yi ci liggéey bi nga ñu fekk nii. dafa mel ni ma la fekk fii ngay def nii diis na de. non tey dañuy meññ sax parce que dañoo am dañoo am emploi de temps suñu temps moo doyul quoi. dëgg la moo tax ñu profité rek tënk entraînement yi nii mais ñu ngi liggéey daal. nga jël Kagourine avant avant Kagourine doon nañ dox sa combat ñeneen lu tax suwaa bi ne kaw Gourdin. waaw sama combat ak Cheikh dañu doon dox ak gars yooyu mais xam nga tamit mbër bu ne da am loo moom am na loo ne yaa ngi ñee ko bokk. Mm-hmm. te comme li naan staff comme ki nga xam bu combat amul moo lay xaalisam. naan la defal li fay saali kooku am na suwaa si li ngay def. waaw bu doon du sa coobare ngay defee quoi man sama combat Cheikh Tidiane ak keneen ak keneen bëggoon naa ko ba ba joxe sama accord mais bi ma joxee ñi ma wër ñëpp a bañ ma ne pourquoi pas tamit comme ñoom bu méttee ñoom lay gis kon boo ma neexee naa leen déglu ko wax. moom combat ak ne ndigal moo laaj xaalis bëri. non fay nañ ma ko wax dëgg yàlla fay nañ ma. kon ndigal moo ñemewul Cheikh. non non su ma ñemewul du ma laaj parce que Cheikh maa ko daw la am six combats la am champion la nag wax dëgg yàlla mais maa ko daw ci bi fuuf man su ma jël ko bëgg na wane sama bopp te man pour man Cheikh a gën a neex a sax kaw gu rëy ma jël nag. Cheikh a gën a neex a bëre kaw gu rëy Kaaw dafa def ay preuve daan moroomam yëpp def ay quatorze combats. Hmm. bokkut ak boobu six combats nag wax dëgg yàlla nañ ko nangul. Kaaw nag Kaaw nag boo bëggee dégg-dégg nag Kaaw nag sonal na leen de. non tey lay mujjee dugg. <laughs> tey la Kaaw di mujjee dugg. yéen Kaaw sonal na dugg. ah xaw ma tey lay mujjee dugg. yàlla xam ne bu njëkkee woon si man sax dootu dugg. Kaaw dugg na fa ci Thiatou Daouda Fall. tey lay mujjee dugg tey lay mujjee dugg. Baye Ma Ndiaye. tey lay dugg incha borom dëkk bi daa génnoon. bi mu bi daa nekkoon si ruq bi. mais génn naa si ruq bi maa ngi ci kaw tali bi taxaw. di ko oto du ma romb. Kaaw est du jaar si ruq yi. ma bëgg na du dem Kaaw du dem incha allah. mu nekk ngeen nekk combat taay nekk komba combat njarndeem si yéen ñaar combat bi séntu nañ si ngeen samp jaaga xeex yéen ñaar. mënu see ñàkk moom dinañ xeex dinañ bëri bu soobee yàlla waaw dinañ xeex dinañ bëri ndax làmb la ko waa parce que dëgg yàlla kaw kaw gone jàmbaar la def na dara si làmb ko waa xam nga may ma jógee si ay combat gëjoon a bëri wane bëgg wane sama bopp ba tey damaa bëgg wane sama bopp kon nag faaw ma wane si fulla ak fayda ju mat sëkk waaw ah, mais bëgguma gaynde yi daal muus ma rey. bu ko rey ma rey. léegi kuy muus. wala foofu daal loolu laa yem mais bëgguma rey gaynde ah, ma rey ndax su fekkee su da nga da ngaa rey gaynde gi kon sax ma gaynde gi. Hmm. léegi kuy muus. foofu man digal daal pare ma nekk ma pour di rey gaynde muus di kon su ma déggee kon kaw mooy muus bi. a ah, peut-être. ndigal mais man daal du ma rey génn muus du ma rey. ndigal sa combat bii nii séntu nañ ci sa combat yi passé ginnaaw sa digganteeg Sokh sa digganteeg Ndongolo. sa digganteeg Ndiagas. combat yi séntu nañ mu ñor si combat bi. non mën na ne su ko fa xaaree. donc da ko fay xaar moom. waaw ah, bu dee dina ko fa xaar. sa combat ak Ndiagas dina ñëwaat. non damaa naqari dara de te instant expérience bi daa gën a yokku. est-ce que yoru suukar su sa dër daa naqari est-ce que yoru suukar tamit. non suukar dara suukar ah. dëgg yàlla may bax kaaw mënu ko ngeer soo bëggee dégg dëgg rek. jàkkaarloo nga ko. li may bax Fall mënu ko ngeer. billaay wallaay cin bokkul safin sax dañu nag làmb mënut ta ñàkk ngay bëree ñii bëree ñii mais cin bokkul safin. cin bokkul safin. dama ñoom. combat bi séntu nañ ci Kaaw Gourdin. Kaaw fu mu dëkk. Dalifort. mbër moom daan yeewoo fa. Eh. Ah, gën a yomb mbër moom maa daan yeewul Dalifort. ndigal damaa déggul li nga wax de. ma ne. Ah. mbër moom maa daan yeewul Dalifort. waaye mbër yi mu daan yëpp gis naa dañu yeewul. moom moom moom waxuma la Kaaw de bu ñu fa tëggoon tournoi seen koñ ma dem jël ko. seen koñ. bilaay seen Kaaw is xam ne gëm-gëm la am pour jël la fas yéene laataan loolu la gëm ko. Ah, loolu moom loolu moom loolu moom moo ko war. parce que borom bitigu mbagg boo xar xol ba magasin nga fay fekk. Kaaw bu bëggee dem si kaw nag foofu mu a jaar si ñun mais ñun dañu fa nekkul pour di maye ak di fakastaloo ko jug dëkk daanu dañoo am fu ñu jugee am fu ñu jëm te du Kaaw Gourdin mooy tax ñu àgg fa bu soobee yàlla hmm. incha allah ñun séntu nañ si ndigal ak kaw jàmmaarloo jokko maa jokko leen moom lay neex rek parce que parce que moom lay neex man ñoom ñëw ma si làmb ji pour naxante ñëw ma fi te pour nax làmb la staff bi daal bu ñu waxtaanee ba ne ma lii ngay bëri incha allah foofu laay jaar loolu laay bëri. nga tey maanaam est-ce xam nga ne kaw moo mujj seen kaw. kaw daal tey lay mujjee dugg géej waaye bu dee ndam la fa bëgg. tey lay mujjee dugg géej tey lay mujjee dugg équipe bi baax la. billaahi wallaahi incha allah rabbi bu dee ndam doo ngay tax mu duggati fa dootu fa dugg moom nee na moom peeru mariage am la yor. ay nabar la leen di fay di tebbi aas. peeru. peeru mariage ay na la leen di fay di fay boppam aas. waaw mais loolu la yaakaar rek léeg-léeg béykat bi nee dix dix dix de rey aas xuma. dix dix du rey aas. non dix du rey aas. waaw baax na waaye aasam yu bëri la dajale. bii de aas bi du jàll. Ah. bi du ma indi aas dama koy bàyyi ak aasam mu ñëw ma tooyal ko def si carte gi ndox du fonctionné déggoo ma de. <laughs> du jàll carte gi laay def ndox carte yëpp tooy du jàll. kàr gi ba bu amee ndox moom. <laughs> ndox laa si sotti mu tooy xëpp. du fay dara ngir xeex. ñu xeex bëri ma daan ko incha allah. Ah. waaw dañ la bàyyi nga woote comme combat bi lees. ñu ngi woo fan see xëy rek am di jàmm di woon nuyu sama gars yi maanaam nag sëñ Thiam. Mhm. xam nga Fallou yan bu diis laat. di leen bëgg baax parce que ñooy di ñu ñëw wéttali physique di nii quoi. Mhm. xam nga day métti nag ñuy jaayante xam nga. taal seen i moto ñëw di ñu di ñu dooleel. fàttewuñu ko quoi di woon ak Kanji promoteur DG borom réew mi ñu ngi koy woo si combat bi bu baax a baax mu bàyyi si xel. Mm-hmm. di woo Abdou Aziz Ala Ndiaye bu baax a baax di woo waa Guédiawaye yëpp waa Cité waa ngi leen di woo xam nga di nag Lat Diop waaw borom réew mi Lat Diop borom dëkk bi Lat Diop waaw Guédiawaye bu suñu bët xonqee moom la gis ñu ngi koy woo ko waa mu ñëw teg loxo si combat bi mm-hmm. pour yëf may neex di woo Bambakan bu baax di woo Lamine Faye ak Bitey ñoom Serigne Ndiaye Boy Petit ñoom ñëpp ñu leen di woo di woo sama grand yi nekk Espagne yëpp ñu jàpp si combat bi mobilisation daal laa bëgg si combat bi képp pour boo yëpp mën a génn dem stade quoi incha allah. loo koy yóbbu sa kàddu gu mujj. maa la mën maa la ëpp doole soo xeexee ma duma la boo bëree ma daan. sa waxaate du samay wax. cin bokkul safin. Ah. waaw li may wax doo ko ngeer di la ziyaara di joxaat sa wàccuwaay bu wér-wér rek. doo fexe Taysir. di wax na à suivre dimanche. incha allah rendez-vous. Khalil di la. gus-gusal bi ñu ngi leen di woo waaw ñu ngi woo waa mafia salle ba yëpp gus-gusal bi ak yooyu maa ngi woo yooyu dini yooyu <laughs> yooyu maa leen di woo yooyu sonal nañu trop billaahi wallaahi <laughs> xalil di la bëgg waat bu baax a baax di bëgg kenn si man nag Jean Diouf Seri Tina Jean Seri Tina maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la nag yow xam nga man xam naa Seri Tina waaw maa ngi ñëw di woo yooyu yëpp nee la le 19 ñëw leen istat tong tongal kaw gor ne mu gëlëm di matt ñii di matt ñii dugg si bëri ah, yow lañu si par ñoom man a gisoo ñëw yooyu yaa ngi nii wër ma <laughs> sama doom day yooyu